ci waawoon a woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm ci waawoon a woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm ci waawoon a woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm ci waawoon a woote kon lépp rafet na waaye itam occasion la tey ci saal bi ñu wax la jaajëfi subateel ja jiboon sunu wayjur sëñ Abdul Aziz jibal la ko fii ci saal bi jaajëf jooju mooy jaajëfu gontu te mooy yaa ngi waaj te demoo ndax yaa ngi fi demoo ndax li nga def ci Sénégal mën naa wax ni ñëpp xanaa ku demul ku tukki rek gis na sa taxawaay kon jaadu nañu defal la hommage nun jeunesse bi wan la ni li nu yaakaaroon ci yow yépp à cent pour cent def nga ko taxaw nga sunuy baay yëg leen jox leen orma sopp leen ànd ak ñoom ci liggéeyu réew mi jàppale leen li nga leen jàppale wëlbatiku Tiwaawoon nag damay wax ni Tiwaawoon bu jaadu woon ñu fay la keneen du fi dugg yow rek yaa fi dugg bu jaadu woon ñu war laa fay warunoo xool kenn lu doon xanaa ka nga xool yaa ko def te naa ko def te bu ko kenn wax kenn amul maqaamam infrastructure yi nga def fii orme bi nga jox sunuy kilifa jàppale gi nga leen jàppale ñoom ñépp wax nañ ko ku ne dégg na ko waaw boo demee ba yàlla dogal amoon nga mën a présenté waat nga ni duma présenté wu ndax sama honneur mayuma ma def ko nga wax ko ñépp dégg ko te xamuloo ni góor-góor la fekk bindul walla mu wax soo bindee walla nga wax di jaamu nyep, ndax ku mu neex interpréter sa wax nam ko neexe yow nag da ngaa delluwaat delloowaat eh, orme kilifa yi joxaat peuple Sénégal li nu moom wëlbatiku ni leen nag maa ngoogu ñëpp ànd ci keroog bi nga génnee ci sa buntu télé eh, Sénégal yépp daje di la feeñalal orma ak mbégte gu ñu am keroog nga sañ gémmiñ yu xasaw yépp tey nag ñëw nga pour barkeelu si ci guddi yonent bi naka jekk na nga ko daan defe ba ci ëpp solo sunu kilifa nga wax ak moom li nga wax ak moom mu wax la li mu la wax ñun ñëpp sunu xel dal nga wëlbatiku jox ko li nga ko jox soo dikkee fii ci saal bi danañ la wax jërëjëfi démb mooy jërëjëfi tey kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji aas am say ngërëm Tiwaawan woote kon nag wuy ku jóg wuy ji aas am say ngërëm